te ñu ngi leen si beneen yoon waagaan jëwénati naka la ko siiwee ni di ko waxee. ah boobu moom. nga naa ko waaw déwénati di leen ziyaare. naka nga expliqué bi. tey nga julli na démb. man démb you know yaakaar naa ñëpp ba si Gambie yëpp démb lañ julli you know so jumaa faat lañ man. population you know, day by day, so uh, day by day, uh, spend it like any average Gambian, you know, them Julie, DLC, you know, Har Imam Ray Haram, you know, Lakandawal, them siyaare dëkkandoo yi but unfortunately tamit uh, démb nag uh, benn si dëkkandoo yi uh, gaañu you know ñu am ditch. so you know uh, waaw sant yàlla. sigil leen ko a xam rek waagaan euh, su décembre yi jot am yaa di toj Gambia euh, dafay def lu rafet rafet sa liggéey nekk liggéey bu sell nekk liggéey boo xam ne euh, artiste Gambia xam nañ ko ku fi rise rek si la starté ñu bëgg xam si yan pax nga dugg si waaw euh, ren nag open mic bi bu soobee yàlla euh, ñu ngi am years so si loolu lañ nekk ak yëpp yu nu mun naa wax samay for the past euh, six seven months ñu ngi si liggéey bi you know years nag lu jar la mm-hmm. you know and bu soobee yàlla daal fas dañoo def lu yéeme daal incha allah you know bi say ren dañ fas yéene pentur asamaan fii colors of the Gambian flag bu soobee yàlla. ko wax rek moo ko wax mu ne asamaan bi la gars yi di peinture. peinture red white blue white green yal nañ ko te taw ko tamit you know bu soobee yàlla uh, daal. kuy peinture asamaan foog rek ñu ko. parce que dafa wane ne euh, pare na ku liggéey euh, damay wax ne ñun Gambien si liggéey rek leen xam te moom ab royukaay la euh, waagaan ba léegi rek di bëgg a xam soxna si fu mu génnee si Boratin la ndax Vermesen ndax fan la génnee. waaw démb ceebi yàppa xam nga nag moom ceebi ndawal moom yaakaar naa tubaski moom you know. bu xam-xam la bu. weex bu weex bu waaw. waaw bu weex waaye mu mu mu ngi wax nañ ne dafa nim sedd moo daal. Mm-hmm. waaw soo xam naa yaakaar naa tey. tey tey tey tey daal. Mm-hmm. yaakaar na you know waaye like I said also unfortunately xam nga uh, dëkkandoo bi mm-hmm. yàlla jëlee suuf you know uh, si kanam tuuti lañ war a dem si dëj bi suul bi yooyu you know so. Uh, ñu si yooyu yëpp tamit daal euh, di ko ñaanal moom it yal na suuf sedd si kawam you know waa kiram tamit di ko ñaanal euh, xoli euh, a xam rek looy wax askan bi maanaam sa i fans ñi nga xam ne dañ la bëggal lool bëggunte dégg dara lu dul waagaan rek di safoo waagaan di faale waagaan gis naa ñoo xam ne nag dañ lay jooyal ah, di wax waagaan moom fii best promoter yëpp ñu dégg ko looy wax fans fan si nag euh, wax dëgg man awma seen fay you know euh, awma lii naka laa ko waxee si olof but let say it in English I'm more in awe of them man ñoom ñoo ma gën a waar sax ñoo ma gën a dogloo dan man ni ma leen dogloo yi waaw because euh, you know ku la bugg moom nga yëg ko rek mooy fayam mm-hmm. waaw te you know wax dëgg neex yàlla ñeena ñi jàpp nañ si lañ nekka you know fonk nañ si lañ nekka soo ñu nit foog ñu war leen a yëg delloo leen jukkal boobu amuñ seen fay wax dëgg neex yàlla waaw you know man luñ bugga rek man si la ngay def waaw si loolu la ba ma a xam nag euh, julli bi ñan nga koy may maanaam ñan nga koy euh, wis Talent yëpp waa Gambian Talent yëpp you know euh, comme ni ma waxee rek di leen ngeen bàyyi seen soxla ñëw fii you know loolu rek wax dëgg neex yàlla wan na ni ngeen ñu yëgee you know du man kenn rek waaye si ñi ngeen di dem yëpp wan ngeen ñu ne yëg ngeen ñu ba bàyyi seen soxla yi you know ñëw rek soo wax dëgg neex yàlla amuñ seen fay di leen ñaanal you know fan bu gudda wér gu yaram you know si li ngeen nekk yàlla gën see jàppa bu jëm kanam ñun ñëpp njëriñoo si askan gi doomi e réew mi kuy doomi réew mi rek war ngaa njëriñoo si ñaxi liggéeyi réew mi waaw te yow it tamit am nga warugal pour ñaxa doomi réew mi tamit ak askan gi njëriñoo si sa liggéey daal si ku nekk waaw si loo munti jàppa rek foo munti nekkee jàppal di puus yu nu uh, xam ne tamit yàllay dogal yàllay maye am am moom yàllaa ko maye yu nu lu ndaw li nga am yàlla daf la ko dénk rek te du pour yow kenn yow sa njaboot ak askan bi war nañ see mën a njëriñoo daal bu soobee yàlla. na ko waaw wax nañ ko ndewinati. yàlla loolu fekkee ñu bëree bëree bëri jërëjëf. amiin amiin amiin jërëjëf aw ma seen fay di leen ñaanal yéen it ah, si li ngeen nekk rek ak si yoon bi ngeen nekk nii yéen ngeen ko dem seeti ñu jaama. mu jaama you know àdduna si gis nañ si li ngeen nekkee you di leen gën a ñaanal rek. wax dëgg jërëjëf tamit jërëjëf waaw thank you ah kon nag mbokk yi eh, bu boobaa rek dem eh, uti ji ndewenal eh, fu nekk nii nag kër yaaw ko naata la ñuy dem waagaan comme mu ma leen ko waxee rek dafa am dëcc moo tax rek ñu oyofal bu boobaa rek mu oyof jërë ngeen jëf askan bi toppaleen ñu ñu dem a demati feneen jërë ngeen jëf.